foofa tamit validation ba c'est problème bi day nekk un double travail day jeex mu nekk loo xam ne ci parti boo xam ne c'est le premier parti de l'opposition du pays mu wala daaw wala def nga ànd wala gouvernance boo ci buggee boobu la liggéey yu bëri yi nga nga xam a à la base comme au sommet ay double emploi ma say liste mën naa tardé say liste mën naa bañ a baax boo ko déposé mën nañ ko rejeté yooyu yëpp mu nekk ay problématiques yoo xam ne man bi ma xoolee texte yi passé dama ne ah les textes sont bien faits en tout cas gisuma parti politique Sénégal boo xam ne am na texte yoo xam du point de vue strictement de l'idéal démocratique mooy lépp loo xam ne loolu leen texte yi gisuma texte bu bëgg na démocratique ab texte nag mën naa baax ci démocratie méngoog démocratie ndax lu ñuy bind rek laa koy xalaat nga bind ko méngoo demokrasi lol amul par parloo dégg nga maam lepp dañ koy xëccoo ko ëpp mbooloo yaay falu mu nekk lu baax ci tek yi waye boko ko bëggee jëmmal nag ci nit ñi nak fofu la jafe-jafe bi di am nag te loolu la Pastef am dafa dem ba am jafe-jafe jëmmal ay këyit dafa dem ba am jafe-jafe bu taano way bi loolu moo taxoon élection locale yi deux mille vingt yi en vingt trois janvier deux mille vingt deux gis ngeen bi ci liste yi yéen a Pastef yi ci am nag Ousmane Sonko daf ñu génn taxaw wax ne gis na ñenn ci ñi ànd ak moom nekk bi Pastef ñu jikkoo yenn jikko yu faat ci ay xëccoo ki fàttal ki tàppale jikko yooyee moo yées jikko yi ñuy xeex nekk ci biir benn bokk yaakaar ànd tañoon na ànd ak Macky Sall Sonko day ba loolu nga xam kon moom ànd ak politique sax loolu kenn du ànd ak sa mbooloo muy politique di ko wax taxdidu tuhas ay ñi ànd ak moom waaye moom toppatoo loolu ci ada lay ànd ak yéen dafa taxaw carrément wax leen yéen ñuy Pastef yéen ngeen ay jikko ñenn ñi ngeen ay di benn boo ko yaakaar ñu ànd ak Macky Sall loolu bu kau wah wax bëgg di parparloo loolu lu am solo ñu ñëwaat ci élection législative yi député yi gis ngeen am na ñu kontaan am na ñu kontaanul am na mais loolu moom mooy lii am tout le temps yu tànn waree am tout ta temps ci àdduna bi parti politique bu ñuy tànn tout le temps dina am ñu bég am ñu mer ndax ku ne tànn ne am koy jël am koy bàyyi mais mënoo jël ñëpp ndax bu ñu demoon ba bu ñu demee bay tànn rek mooy mënuñoo jël ñëpp te képp kuy xalaat ñu tànn la rek war ngaa mën a xalaat aussi ñu bañ laa tànn loolu mooy dëgg ku ko mën a ànd yow damay jàpp ne ëllëg ñëw danga am gàllankoor ci bokk pour bokk ci ñi tabax réew kon nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax a loolu loolu moom laay wax ne tey moo dox a dox ci ay jafe-jafe yoo xam ne Ousmane Sonko nekk nit koo xam ne ci njàlbeen il était très doctrinal nit la koo xam ne dafa amoon ay forte conviction accompagner en œuvre fi bëgg jaarale bëgg a taxaw ñoom képp demandoo ñoom képp imposer seen xalaat su ma nee imposer du forcé waaye taxaw rek na ñun nii lañu gisee politique nii lañu koy defee ku bëgg ànd ñun ku bëggul baax noonu lañu tàmbalee woon dëgg këcc ci seen taxawaay am na ñu leen ci fekk si am na ñu leen ci fekk si waaye taxawaay boobu bu dëgër boobee dafa dem ko jur léeg-léeg ay jafe-jafe mooy la démocratie est une démocratie mais c'est un qui coûte la démocratie est un produit de luxe une démocratie parfaite est une démocratie excessivement chère parce que ça fait supposer que ñi seq mbir mi ñu au même niveau d'information. Nous avons les éléments d'appréciation, nous am les outils de management qui nous permettent quand même de faire valoir la démocratie du point de vue donc de la loi de la majorité des laaj ñëpp tolloo ñu mën a def ay élection de libre yu pas de match moins de l'argent ça demande du temps donc la vraie démocratie est un produit de luxe ce n'est pas évident man nous devons nous mettre en œuvre à ah, dans le monde, tu feras face à ce la réelle politique. La réelle politique, c'est la réalité sociologique du terrain. lenn bind lu rafet la waaye nag askan ñoom askan ñoom science sociale la askan leneen la loolee moo yóbbee waa Pastef ñu dem a dem ba jàng jàngat lu bëree bëri ci loolee nga xam dox na fi 2014 ba 2020 ñu gis na kat ba 2021 kat ah def nañu daanaka biir ci doxalin am na lu ci baax en général ñun dañuy waxtaan lu ci sukkee ci mbir mi est-ce que jotul ñu toog pencoo ko mbir yi ci la ñu waxtaan daal di diisoo le COS comité d'orientation stratégique jël ay dogal ne kat nañu soppi statut yi gën koo woyefal defar ko defarin xam ne gën a woyef dana taxit parti bi gën a ubbeeku daan ci mën a dugal ay nit yoo xam ne daañu ci mën a indi seen i xalaat indi seen expertise indi seen njàng indi seen bëgg-bëgg ngir jàppale parti bi ñu mën a àgg fi ñu te fi ñu jëm mooy jël réew mi tabax ko ñu defal ay statut yu bees soppi yu mag yu njëkkee yu soppi ko indi yu bees te yi modification yi da de l' waaw ñu daal di koy ko foofu ñu validé ko texte yi ñëw nag ñu soog a commencé tàmbali nag di déroulé loolu mooy indi tey discussion yi. da koy xool bureau bu bees Pastef dafa am bureau politique bu bees boo xam ne bokkul ak bureau yu njëkk yi kon texte yi statut bi dafa soppeeku waaye règlement intérieur bi tamit il faut que mu soppeeku gisaguma ko mais règlement intérieur bi il faut que ñu mettre ko à jour par rapport ak statut yu bees yi c' est forcé parce que c' est lié ah kon bi loolu amee dogal bi ngeen ci njëkk a gis ci soppite statut yu Pastef yu bees yi

nommé ku ko neex ànd ak moom di mais yeneen niveau parti là la la fay élection moo lay fal élection Pastef ex yu njëkk yi kenn mënu faa falu loolu élection daa une jël au niveau de la cellule militant de moo lay au niveau de la section militant de moo lay au niveau de la coordination militant de moo lay au niveau du congrès pour le président militants yi ñoo lay fal loolu moo nekkoon ci texte mais pour la première fois bi xamee texte yi tey ñu mën a tabb ay nit yoo xam ne dogal lay jógee ci président bi moo lay tabb signé ko président Ousmane Sonko a nommé le pouvoir donc de nomination de Ousmane Sonko a été élargi dans les nouveaux statuts de Pastef loolu mooy li bees mooy innovation bi mooy tey ñoo jël ay très rapide Ousmane Sonko maa ngi leen jox pouvoir de nomination ñi Macky Sall yu toogee ci palais bi di jël ay décret di nommé Ousmane Sonko tey dafa am pouvoir boobu dañ ko renforcer dañ ko koo dooleel bu njëkk nit ñi ñooy fal ci biir Pastef léegi Ousmane Sonko mën naa fal day fal loolu benn teg leen seen baaraam foofu loolu lu bees la ci biir Pastef après mën nañ ko critiquer aussi ne est-ce que loolu c'est démocratique ou c'est pas démocratique ça se discute ki nga xam ne moom nekk ci biir mën na taxaw demee lu tax Ousmane Sonko ñu koy bàyyi kese bi daal du est-ce que ñu fal. xam ne am na yenn postes yoo xam ne ci biir état bi. dañu ko war a def appel a candidature pour ñoo toog rek bàyyi Macky Sall muy fal lu ko neex Ousmane Sonko ci boppam dans son programme de 2019 am na yenn poste ci biir état bi yoo xam ne na moom mu faloo président appel à candidature la ko def du ko du moom kenn kon Ousmane Sonko am na loo xam ne ànd ci nit di ko nommé moom benn Ousmane Sonko moomee moo ñëw tey am ay pouvoir de nomination jël ñu bëree soppi bureau Pastef yëpp tey nommé ñëpp tey ñu fa nekk ñëpp Ousmane

mu des nag bu ñu ko càmbaree ba peese ko la cay lor ndax dafay ëpp la cay jariñ bu baax a ba baaxul bu fekkente ne la cay jariñ moo ëpp la cay loraate kon dogal ba baax na mën nañu ko adot ndax la cay jariñ moo ëpp loolu mooy am xel waaye doo sànni rek wala ngay dàq wala ngay jël te càmbaruloo damaa gëm man ci ñi ko gëm doole man man ci ñi jàpp ne nii ñu defaree texte yu bees yi man ma mooy li parce que lii mooy ni parti yëpp di doxee parti politique yi nekk Sénégal yëpp nii la ñuy doxee dañu jël bi li ci ëpp solo jox ko benn nit pour parce que day tax parti bi gën gaaw a dund day tax évolution parti bi gën a gaaw day tax dogal yi ñu war a jël mu nekk dogal yi gaaw day tax bu parti bi amee crise ak ay problème ñu war ci jël ay dogal ñu fi nekk naan dañuy réglé loolu dañuy voté dañuy fal ci dañuy fole ci automatiquement ki nga ne parti bi mu nekk koo xam ne moom la nit ñi wóolu dañ koy jox doo pouvoir boo xam ne bu parti bi soxlaa xam ne day jëmale parti bi kanam te mun taxaar bu mën ci ay dogal loolu laa gëm il faut être pragmatique d'autant plus parti pragmatique c'est parti idéologique pragmatisme donc pragmatisme war na feeñ ci ni muy war na feeñ ci kii itam dogal yi nga xam ne dañ ko war a jox bu parti bi amee foofu moo tee parti bañ lool am na décision bi jël changer statut yi jël Ousmane Sonko jox ko ay pouvoir de nomination dooleem dañ ko yéex a def waaye laay mais xëy na boobu xam nga politique léeg-léeg nga taxaw ne man du def lii loolu ne doo ko def sa bëgg-bëgg la sa sañ-sañ sa conviction bopp la mais bu yàggee di nga mas a dox ba loolu ne doo ko def politique moo koy forcer nga def ko par force parce que yow mii politique ak politique bokk leen politique jëmm joo xam ne amul xol amul xalaat yow yaay xalaat yow yaay jëm ci yaay am say bëgg-bëgg say bëgg waaye politique moom du xalaatul amul xol amul xol da nga ba loolu mooy réel politique moo tax tey ñëw nañu ba Pastef dafa fekki APR fekki PDS fekki parti yi nekk ci réew mi ni ñuy doxee yëpp mu dellu ci loolu te mooy lan mooy jël pouvoir bi teg ko ci benn loxo tey Ousmane Sonko mooy pouvoir ñi fi tudd ngeen gis ci liste bi Ousmane Sonko moo leen nommé kenn nommé wu leen Ousmane Sonko moo signé document yëpp loolu maa na ko critiquer positivement comme man daal daa positivement voilà dana avancé dana gaaw. management bi dina un management donc euh, euh diligent et un management pragmatique c'est important ça parce qu'on n'a pas le temps à perdre comme l'autre dama personnellement absolument. Euh. alors Il publicité dans il faut me bloquer les gens qui font des publicités sur mon mur là Ousmane Sonko léegi am na pouvoir di nommer benn ñaareel mooy am na innovation boo ci def mooy ci pragmatisme bi oh là là publicité la toujours ci pragmatisme bi da nga ciy gis ne euh, ci biir nomination yi président Ousmane Sonko. Euh, waaye dafa leen ñoo xam ne duñu waa APR wax nañ ko fi ci live ne effectivement un parti patriote mu bëgg a tabax réew mi war na di xalaat léegi di jël ay nit moo xam ñu bokk ci parti bi jël carte wala ñu ñàkk bokk ci carte parti bi ñàkk jël ay carte waaye am ay compétence am ay conviction am ay valeur te ko am ñi kat ñu ay compétences par exemple Ousmane Sonko leen boole leen ci équipe yi nga xam ne ñoo koy wër pour liggéey ñu jot ci réew mi sans nekk loolu jëmmal na ko tey ci biir organisation bu bees bi bureau mu tàbb ay nit yoo xam ne ay ñu mel ne ay professeur Goudamou ay ñu mel ay colonel Kébé ak ah, ay professeur d'université yoo xam ne ay waaye seen i xarit seen taxawaay seen ay compétence la président Ousmane Sonko ak waa Pastef jàpp na ñii kat dañ ñuy dolli ñuy dem suñu doxalin ñu jël leen tàmbali leen biir organisation xalaat seen xel di leen jàppale ci loolu sans pour autant ñu nekk ay militants Pastef loolu la

fekk ay compétence voilà yóbbee nañ ko fekk ay compétence nga dugal leen ci biir xooloo na kii ci parti bi la bokk xooloo na kii sama xarit la xooloo na kii dégg nga moom sama sama sama waay la wala xam na diw xam naa déedéet xool ko xam parce que wax naa leen ko yaa des patriotes bii mu jël def ko ci jox ko ay responsabilité Macky la ko nommé woon jox ko ONAS mu nekk biir APR ànd ak Macky Sall di liggéey ba mu demee ba gis na Macky Sall fi mu yooyu baaxul dafa taxaw àndul moo ñoom taxaw ñu génn ko fa dàq ko Ousmane Sonko jël ko Jacques Habib Sy liggéey na ak Macky Sall tey liggéey ak Ousmane Sonko kon il ne faut pas que ñu taxawal ay frontières ne képp ko ànd ak Macky baaxul képp ko ànd ak Ousmane Sonko yaa baax loolu Ousmane Sonko dàq jël na ay nit tey yu nekkoon ak Macky Sall démb mu dugal leen ci safam ñu ngi liggéey ak moom. te ëllëg bu yoree réew mi tamit noonu lay demee ci biir Benno Bokk Yaakaar fekk ñu baax ñoo xam ne ay patriote lañ mu jël leen ànd ak ñoom liggéey bi lay fax Sénégal kër Ousmane du sama kër ñoo ko fu compétence nekk dañ koy jël te loolu Ousmane Sonko wane na ko dogal bi mu jël tey dëgg la loolu lu am am solo mu nekk loo xam ne man dama ko rafetlu muy ñaareelu poñ bi mooy deuxième innovation majeure bi mu def bu njëkk bi mooy jot nañ ko ay pouvoir de nomination première innovation qui deuxième innovation bi mooy pouvoir de nomination yooyu bu ko utiliser à bon escient mooy dañ utiliser wu ko de façon politique maanaam ñi nekk parce que képp ñoo am droit am ay doomu daal fii dafa dem jéggaani ay compétence en dehors de passé dugal leen fii passé ñu jàppale ko pour mën a def deuxième innovation c'est très important très important troisième innovation bi mu def mooy dafa renforcer ses équipes xam na ne yéen gis na ñu fi nekk ko parce que soxla na ay loxo bees mu yaatal ubbi yaatal faram fàcc ko faram fàcc ko dégg nga kenn ku ci nekk am na lu tey kenn ku nekk moo am loo téye kooku nag il a fait une bonne approche managériale waaye il a tout ça parce que ni ma ko gisee ko. secteur par secteur sous secteur par sous responsabilité ñëpp après dina ñoo xam ne ko tax ñi parce que am na ay noon yoo xam ne bon kenn gisul ñëwuñu ñu may woon def woy gis ñu gis ñu xam ne nekkuñu ci équipe bi tey nekkuñu ci équipe bu nekkuñu fi mooy tax na xaw ma boobu la tax Ousmane Sonko moo xam ñoom ñi def lii xam ils sont les raisons moi j'en sais rien donc qui dit choisir dit aussi faire des choix jël ñi kii Ousmane nag moom moo bëgg a nekk président moom moo xam naka lay tuñee bopp ngeen Mais quand je dis, je n'ai pas dit que Soko a tous les pouvoirs dans il a les pouvoirs de nomination renforcés. Donc là, vous le dit, ni les classes, il y a des mouvements Soko pour le nommer. Les nations sont Les nations doivent être approuvées par le Conseil national. Ah, le Conseil national, quand il y a des réunions, quand il approuvé, en tout cas, dans la décision prise par Ousmane Soko, signée il est dit qu'effectivement, ces nominations donc, prennent effet à partir de la date de signature. Mais je bi ñu le mieux que ci la ñu am nombre d' mais ces nominations sont provisoires jusqu'à validation par le conseil national quand Il yàlla xam kon Ousmane Sonko nommé na ay nit ñoom commencé nañu bah, parce que le conseil national dit ko validé donc c'est une décision donc suspensive mais qui reste provisoirement applicable donc Ousmane Sonko a un pouvoir de nomination et de faire donc travailler des gens qu'il a nommés, nonobstant l'absence de, la validation du, Conseil national. Donc là, je suis dans le texte. donc Dire que je ne suis pas d'accord quand tu dis Ousmane quoi tu il faut argumenter, il faut donner des arguments. mais suis d'accord, c'est pas grave mais pour d'accord da ngay a ay arguments il ay éléments des na libre d'accord le fait de ne pas être d'accord moi ça ne me dérange pas ce qui me dérange c'est de ne pas pouvoir justifier son désaccord moi ce sont les arguments qui m'importent Là, il est indi que tu ci ko taxaw man ma amal njariñ du du d'accord ak d'accord d'accord d'accord kooku normal qui ci à aadama bu waaye boo dee d'accord nga waktu ngaa dah a wax lu tax d'accord boo dee d'accord nga da ngaa war a wax lu tax d'accord nga moom laa nekk def ma ne naa lii xew tey parce que Ousmane Sonko ne ko ànd naa ci te maa ngi dengan. lu tax ma ànd ci ak ba léegi mu lay compris hein très bien parce que man man dama gëm science politique te science politique dafa am ay da yu xaw ça dépend de dépend pas de toi qui parle ça dépend pas de toi ça t'échappe daf la koy science politique daf la koy imposer par la force parce que sociologie te sociologie dafa complexe parce que soo ko lii def ni tey defu ko woon ci njëlbeen dañuy taxawal ay textes yu ko bind dañ ko bindee woon bu njëkk moo gën a démocratique mais dañoo dem ba.

nga ñëw ne non dañoo soppiku ñu dañoo changé kër ga waaw mais changé baax man nit ku du man man ñemewu la man nit kuy changé laa bëgg man dama gëm kuy changé mu des nag il fay changé sa gën moom te gis naa ko ne bëgg dem ma ma il faut contre sa sa grand homme Macky Sall lay waxal de gars xas mi bi naan la moo tax man Macky Sall est un grand homme ma leen ne un grand homme c'est un grand homme c'est comme le mot nit kuy changé nelaw nit kuy changé baaxul loolu waxi wolof bu yàqu la nit nit kuy soppiku baaxul loolu képp ku la koo xamul xam-xam nit nit dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg day soppiku constamment d'ailleurs nit bu taxaw fenn dafa di soppiku constamment waaye soppiku bi ngay soppiku ban façon soppiku ngay soppiku loolu mooy laaj mooy loo sànq argument yi nit buy soppiku naka la war a soppiku dafay soppiku jëm ci lu baax soppiku jëm ci loo xam ne njëriñu askan wi la looloo baax waaye boo soppiku musibam Ele cruzou a pergunta e me dei só perguntando, só perguntando, ada só perguntando, só perguntando a bolsa, só perguntando de bar. Isso grande na de bar, na marca do bar, que do bar, quando terma ali o bar, bar, apa? lo bah bah bah bah isso do Lo def lu bah bah bah bar, isso que def lu liga def, kot bah, isso go har, ya, quando fay wax har bar, har bar, bar que do go

đi thì cũng biết communication daal Pape Djibril di ko dal di ko dal ba àgg ci ne man moom lu waay xam ci réew mi nga ko def waaye artiste yëpp leen laa dama leen ko te pourtant Pape Djibril ku ma nawoon la ku ma jàppoon la la la wax yu set la ko nekk waaye ci dëgg-dëgg bett na ma kii mérité wul sax nekk député dégg nga bu xar avant Pape Djibril di laal fi mu bokk Pape Djibril ku baaxoon la la wax yu jub la moo ko wax de waaye bi Pape Djibril xëyee wax benn wax jëmale ko ci seen corporation ñoom fa ñu bokk la Pape Djibril doon def yëpp sànni na ko gëmatu ko sànni ko ci àll ba nee na sax mu doon nekk maa ngi muy wax li muy wax am na lu ci pertinent waaye am na loo xam dafa wax ci fi mu bokk dafay ñàkk boppam ñagu ñàkk ñi mu àndal ne bu noonee bu ko defee per bu xat boo laalee presse bi médias yi noonu la ñuy taxawee braqué wu waa Pastef yi boo laalee Sonko wala Pastef noonu la waa APR yi boo laalee Macky Sall ñu braqué wu sëriñ bi boo ko laalee ak Sall ne ne ne du te réew mi te réew dara doxul mais doo tudd kenn mais daa tudd c'est dara doxul waaye ñàkk dox doo ko jiiñ kenn koo ko jiiñ ñu song ko dogal yàllaa ko dogal moom mooy làppato bi ci réew mi yàlla mooy moom daal lépp moom lañ koy sëf imaam baa ngay xuloo ko rëbbi imaam moom ca jumaa yi njëy ja damay tabax jumaa ñu ko tabax suuf moom moom kër kër ñu reyante ba mu dee ñuy enquête ne dégg mu jógee ñu ne ah dogal yàlla yàllaa ba ñu reyante ñoom di dóorante yàlla ñëw fa ba rey ba kooku a waaye ba xa ba mu xasee ba dee yàlla yàlla moom mooy reyaate bu ñuy xuloo na paage suñuy di reyante di di ko mag yàlla yónnewu ne ah, mag yàlla bu su dee yàlla ko dumun boo ko kenn ji jiiñal ko yàlla lii mooy Sénégal doo laal fenn mu laale Pastef ñu song la boo laalee Cheikh Bara ñu song la boo laalee Pape Djibril ñu song la boo laalee Akhenaton ñu song la koo ci ñu solo dolaa kenn te réew mi day dox fi de waaye kenn dudu kenn ah da mooy rek léegi nag naka lañ bëgg a tabaxee am réew ci ci lii loolu ab question la ah ndax nit ñi il faut ñu gëm seen bopp en condition ñu xeex waaye xam ne Ousmane Sonko moom lépp Pastef moomu leen Macky Sall moomu leen kenn moomu leen ñoom ñëpp dañu romb Sénégal la fi des loolu tant que nekkul ku nekk ci yéen du ngeen am fit taxaw wax li ngeen xalaat moo xam lu baax la biir Pastef wala lu baaxul moo xam lu baax la bi Macky Sall wala lu bon moo xam lu mën doon waaye nga di ko wax ngir sa àqu ndaaxi taala nga di ko wax ngir bëgg Sénégal képp nga di ko wax ngir bëgg mu defaru xaaroo ci dara bëggoo ci dara bëggoo ci xam kenn bëggoo ci poste bëggoo ci palaat bëggoo ci dara waaye da nga xam boobu xool ñu defal nga wax ko doo ci bañ la saaga doo ci bañ kenn yoru la kenn yoru la yow lu bon lu baax Ousmane Sonko wala Pastef ak réñ bi ak Macky Sall ak man ak yow lu fi baax nit ñi ko defar lu fi bon yàlla ko def yàlla moom mooy làpp mooy mbalit bi ak ko wax kon nañu delloosiwaat suñu bopp bàyyi yàlla dañuy tooñ lu lu fi yàqu ak ku rey ak lu fi musiba ñu jiñ ko ko lu fi àq ñu def seen wala nanti mu seet la wala Pastef la wala Macky la wala Akhenaton la wala jigéen nañ bàyyi yooyu yooyu baaxul yooyu baaxul kon bu ñu ñëwee toujours ci euh, li nga xam ne mooy soppite yu bees yi am ci euh, biir Pastef te man ma jàpp ne des changements yu bëri que ay nit xam ñu bokk ci Pastef moo xam ñu ci ñàkk a bokk waaye jox nañu ay dogal yu bees Ousmane Sonko mu mën a tànn ñenn ñi doonte c'est provisoire tàpp leen. di lu bees waaye sax ci biir tànneef bi tànneef bi daf ci am ñoo xam ne dañoo amoon ay yenn responsabilité yu nekk ci parti bi responsabilité yooyu yu ñu ñu jox yenn yi bokk la jël yéen ña doon jox ñeneen kon ci jàngat bi Pastef ak dund gi mu dund président Ousmane Sonko ñi mu àndal dem nañ ba gis ne am na ñoo xam ne lañ leen jotoon a dénk ci njàlbeen ba ñu doon sos Pastef dañ ko defoon parce que boobu mbooloo yu bari wul di pexe xul man moomu waaye ci doxal yonent yi ngeen jamono joo xam ne am na ñoo xam ne lañ leen déggoon ko du seen mani du seen gert du seen mani du seen dara dañ leen ko dénk ni woon ne boobu ba léegi waaye nag tey nag gert ñu soppi ko ñu jël loolee jox ko ñeneen ñu leen ko gën a mën gën koo xarañ ku ci mel ne Bassirou Diomaye Faye joxoon nañ ko jafaraa mi dina yor ko ku ci mel ne Adjuma Sow joxoon nañ ko question électorale jox joxatuñ ko ku ci mel ne ku ci mel ne donc ñu bëree bëri am na ay sañ-sañ yu ñu leen joxoon ci parti bi ci statut yu nekk yëpp yooyu

waaye bu dee Ousmane Sonko la en tout cas bravo c' est c' est une très bonne approche boo xam ne man personnellement tey jii man caa waaw kii bi léegi am na lu dina suuf le cadre Habib Diop Habib Diop Habib Diop diaspora mais il y a des gens qui m'ont parlé de tout ça. Il a tout bloqué, il paraît, non, vous le renouvelé C'est le livre qui est monté, t'as fait un mot reconnaître le ce solide. Mais l'autre a arriver quand il y a pas mal d'endroits, même au Sénégal, un dans la diaspora, où les gens, ils ont tout brûlé. Des doubles, il y a un responsable primitif, un responsable qui passe ses vieux, on a eu les

mag am na ñu ci gis danger am na ñu ci gis aussi njariñ ça se discute mais waxtaan boo xam ne day tegu ci bëgg a defar ak yéene bu baax nekk ay vrai patriote mais defuñu ko pour saboter pour yàq déedéet mais waxtaan c'est important parce que yaa ngi wax léegi effectivement Tidiane Sarr waaw Euh, bonjour Président. voilà habitude, ce fossoyeur de texte du parti dans les bureaux politiques de PASTEF Sorte au plus haut niveau du parti civil depuis deux ans pour sortir un parti de la léthargie. Donc, juste préciser qu'il n'existe pas de section en Suisse. La seule section de le reconnue de produit, n'a même pas de carte de membre. L'habitude ne souhaite pas donc les vendre à une section qui, selon lui, est illégale en vertu des statuts de la coordination. Bon, ça c'est un problème interne au niveau de la Suisse, je ne sais pas. Mais cas par exemple, qui écrit le, collègue qui a qui des décisions uniquement par le président ou le que cette politique pour induire certains pour, induire certes une bonne organisation pour sauver les partis mais aussi une paralysie à la base.

Il y a des problèmes partout il ne faut pas penser que passé, il n'y a pas de problème c'est parce que les gens n'en parlent pas que York yaakaar parce que le paradis c'est pas le paradis il y a pas il y a des ambitions il y a des disputes des problèmes partout seulement ils n'en parlent pas il y a il autant de problèmes dans le passé que dans n'importe quel autre parti du Sénégal voilà donc on se besoin aussi d'avoir des remontées pour pouvoir intégrer des fois ce pouvoir d'arbitrage là relève aussi d'un équilibre

Euh... Comme, effectivement, euh, tout n'est pas rose. Hein. Euh, après, moi, je pense que bon, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, franchement. Pourquoi Parce que il faut limiter quoi les gens disent oui il faut il y a certains postes ont xam ou il faut ou nous compagnie bàyyi dit non mais ku ko neex ba Mimi Touré gis nga génne na benn proposition de loi pour limiter son nombre de membres la famille immédiate la famille nucléaire c'est la famille proche de Macky Sall ñu am parce que loolu mën na yàq démocratie bu parce que tout pouvoir yi ñooy problème mais qui exerce pouvoir yi ñooy problème donc nañ bañ a qui exerce pouvoir Macky Sall tey bu doon un patriote bëgg réew mi yemale Sénégalais yi jub lu baax am yéen tabax réew mi ay loi laaj ay ñaan dañuy def yenn poste yi du ko jar moom Macky Sall boobu moom su boobaa ku mu tànn liñ leen ci ànd dañuy ku jub la ku bëgg réew ku nangoo liggéey mais lii may ku jubadi la ku njub lan la ku triange ku nangu liggéey commerçant bu xaalis tabax réew mi ñëru nga xam ne amuñu sikk sàkk ci probité maanaam amuñu sikk sàkk ci ak njubam kooku bu ñu ko man muy nelaw man amoo problème bu ñu jël tous les pouvoirs jox Ousmane Sonko amuñu bu nekkoon un despote nekk un politique wax dëgg xaw ne lii lii ñu ko enjeu boobu su ma amoon benn sikk ne day def ci teeyu bakkanam day def ci lu neex day par parloo duma nangu ñu koy jox benn pouvoir même naa passé mu nommé kii ko sa parce que ay lu ma lu ma neex doo ko la koy def nit ku def lu ma neex kenn ko doole nit ku def lu ma neex kenn du ko jox doole askan wi doole askan wi dañ koy jox ku maandu ku jub ku yemale doole askan wi kenn du ko jox nit ku jubati kenn du ko jox nit ku soxal kenn du ko jox tuñaa kenn du ko jox kuy njuuj njaaj foofu la yëfi ne yëfi newul ci pouvoir bi yëfi mi ngi ci ki ñu jox pouvoir bi moom naka la taxawee ndax jub na wala jub ndax bëgg na réew mi wala bëggul réew mi ndax pare na pour sacrifier wu pour askan wala déet waaw ndax kenn Souleymane Ba ba muy xeexal Fouta Toor ba doo dem ñànk yi jënd waat bi dafa noppi jox leen ko ni leen nag da ngeen ko téye te boo liggéey bu leen ko jox képp koo xam ne da cay jariñu ak di ca dugal ay produits yu ko doon def nga ko fooli sax dañ ca àll maa ko fee xam ne nga dee nañ ci. ko def mos léegi ko. ko mooy ko foo kenn Souleymane Ba la ko wax Macky Sall ko bànn ba mu mutuelle na tax na ku mel ne man ma am kóolute ci moom te moom pouvoir bu ñu ko mën a jox jaaju ma am njort rafet ci pouvoir yi ñu ko jox bi parce que mu demee ndax li tax ma am njort ci moom mooy lenn li jëfam la moo ko jëf ci dundam ci fi mu jaar yéen ko parcours bi ba ko xoolee xam naa ne ko jub la waaye li tax ma gën ko wóolu mooy bi ñu ko joxee pouvoir ci jub kii ci ci ñu amul carte parce que xam na xalaat kenn xalaatul woon ne ñii Ousmane Sonko dañu fay dara daal ndax xam kii aw dëpp rek ne ko ànd ak man laay fan ko ànd man dugal fal fépp fu compétence nekk am mu natt la ba xam ne bu jub ba day xëy teg la coo dem dañ tege ko réew mi parce que foofu ko mën a wóolu ne wax ko jëf du ko dootu ñàkk te ko ne mën naa def

bu ngeen gisee dina may gàttal bu fekkee ay wax public na kii bàyyi possibilité parce que day xam parce que yéen c'est pour ne laas le mandat mandat bi dafa pré le mandat mandat mooy loolu fal loolu mooy mandat moo xam ñu fal la ci biir Pastef élection am ci coordination wala section wala poste yi nekk biir Pastef ñi attali fal la kooku mandat léegi Ousmane Sonko nommé fonction Ousmane Sonko dafay xeex cumul de mandat et de bëgg ci xoolal bëgg-bëgg boppam la du ko ci sax publiquement daa xëy na fonctionnaire bu waaye tey ñi mu nommé moitié yi mu nommé ñëpp ay cumul laa la ñu nekk ci lycée bi Ousmane Sonko ñëpp dañuy cumulé dañuy cumulé mandat ak fonction wala dañuy cumulé fonction ci biir Pastef waaye léegi boo xeexee cumul xeex fonction xeex cumul xeex ko ci mandat xeex ko ci fonction yaa ngi daaj ci parti bi nga gëm a suuf ak parti bi nga ñàkk a doole te am na ñoo xam ne ci lycée bi Ousmane Sonko def

attention attention dafay gis benn mot benn nekk ay lampes yu bëri mais yéen a ngi daj garabu parce que li ngeen di mos wax moom ngeen di ci ay question de cumul parce que vous n'êtes pas des petits c'est pas compris non mais dañuy noppi gars yi bëri contre nations yi mais am na am e na ay double fonctionnalité parce que bu ko waxee am double fonction am na ñoo xam ne amul benn modalité parce que damay bu ko waxee double fonction donc c'est là donc c'est là. えっと boo xam ci dañ question ci étudier problématique yi xool enjeu ci nekk yépp listé leen différents types de cumul compatible et non compatible ñu ram ya même une loi sur l'incompatibilité am na ni dañ koy renforcer rek modifier daa ko renforcer ko dugal ci yenn cumul yeeg incompatibilité bi defar ba mu baax nga xam day am une portée générale parce que parti yëpp ñëpp ci tënku mais ak ku pouvoir di jëma jaay waane di wax yo xam que au contraire ñun lay yàqal dañuy yàqal loolu laa gëm ay nit ñu bari liste bi fi nekk am na ci ñoo xam ne ay double fonction la ñu am mooy ay responsable lañu fay nekk ci seen dëkk yi am fa ay responsable ay ndomba daal ba noppee am ay ndomba daal ci parti bi dañoo cumuler ay fonction dañoo am ay mandat électif ci parti bi am ay fonction nominative ci parti bi donc ñun dañoo cumuler fonction ak mandat léegi ci biir ñoom ñu ne def da ngeen ne ma noonu ñooñu bokkuñu xalaat la parce que leer luñ ko Ousmane Sonko xalaat la loo xam ne mais dafa fàcce wu ko ba mu leer ñu ne kii ci bokk ci amul leer comme leerul nag moo tax ma ne teg leen ko ci suuf bis ñu jotee pouvoir bi leeral ko ci loo amul leer ngeen ne déedéet Birame Souleye da ngay bàyyi Aliou Mbaye da ngay mu ngeen duñu bàyyi ngeen ne dañuy bàyyi mu ngeen baax na dégg ngeen ngeen yoon xam ne caaxaan caaxaan dégg nga maam di colo lool soo ki sa tool lay wàcc xam nga xam nga luy politique la

que président Ousmane Sonko ci bureau politique bu bi daf ci dëxëñaale son équipe de campagne deux mille vingt quatre waaw naa ci décision bi tànn yi mais gis naa ne dafa tànn li ko sot li ko influence dafa am loo xam ne dafa feeñ ci tànneef gi mooy Ousmane président Ousmane Sonko mi ngi préparé pré campagne yu deux mille vingt moom candidature deux mille vingt quatre am lay tànn bii mu tànn lii lépp

à la présidentielle de 2024. Et c'est formidable. On gis naa ko ci biir voilà à travers donc les thématiques qui mu viennent, mais aussi nit choix yi mu def donc gis naa ci loolu c'est c'est c'est une bonne approche boo xam c'est à saluer ça veut dire voilà euh, il prend les choses en avant tel préparé wu teel a pour dara bañ ko bett euh, c'est une euh, bonne décision pour ramener et c'est à saluer voilà que chacun se mette au travail que nous et puis nous euh, avons une rigueur et que aussi un intérêt général il a pas de corps parce que effectivement je l'ai toujours dit on a live mouvement un nouveau, dafa être fait sur son cabinet il a un cabinet de président fait son cabinet d'experts des gens de confiance mais d'experts parce qu'il ne peut pas être partout il ne peut pas tout faire il a du boulot gérer un parti monde parce que c'est du travail à temps plein c'est du travail c'est du matin au soir tous les jours tous les jours Il y a a sonn ñuy xëy c'est du boulot j'ai toujours dit voilà, il a, il a étoffé son cabinet, il a recruté des compétences, tout ça. Je pense que les choses vont aller donc euh, beaucoup plus vite, beaucoup plus efficientes. Efficientes, efficience. On besoin de ça, efficience. En cas, On verra. nous apprécions euh, la décision, la méthode euh, et tout. Reste maintenant à voir donc les résultats escomptés. Les résultats à escompter. On verra ce que ça va donner on les encourage, ils ils ont donc nos encouragements. En tout moi, je les félicite, je les encourage, et puis je leur demande de, redoubler d'efforts, euh, de vigilance, de compétence et d'abnégation pour mieux servir l'idéal qui est le projet, euh, mieux donc faire triompher donc cet idéal qui est le projet euh, qui nous empêche de dormir. Voilà on, apprécie quand hein, il faut apprécier, on critique quand hein, il faut critiquer, on, dénonce quand il faut dénoncer. C'est comme ça que nous comptons donc être des sympathisants euh, du projet, euh, comme nous y invite parfaitement Michel euh, M. il effectivement, les, les militants avaient dit il faut qu'ils parlent bien rien aux, responsables. Il a parfaitement raison. Il a, il, il a, je suis d'accord, il a parfaitement raison. Il ne faut pas être indulgent, il ne faut pas être, non, il faut être exigeant et non indulgent tout le temps. C'est important important. Mais dans, dans, dans le sens positif pas dans la méchanceté, pas dans la guéguerre, pas dans la jalousie. Non, non, non, non, pas ça. Donc, félicitations à toutes les personnes qui ont été donc, désignées pour accompagner donc, le projet et son président vers donc, cette grande victoire éclatante qui va marquer une nouvelle étape euh, du Sénégal, celle de la Renaissance. La Renaissance sénégalaise qui déjà s'affiche à l'horizon 2024. Le Sénégal va changer de cap. Le Sénégal va changer de disque. Le Sénégal ne sera plus une lapotonie, mais le Sénégal deviendra le Sénégal donc des hommes intègres, des hommes conscients, des hommes qui travaillent, des hommes donc euh, qui, feront élever euh, le Sénégal à un niveau euh, des standards du monde. Voilà, c'est pour cela qu'on se bat kon na ci ñëpp jàpp na ci nekk def ñoom su fekkee donc la bien mooy yàlla mais ci moom de Pastef ñoom colonel Kébé je m'attendais par contre à avoir Marie Théonian à côté de Ousmane Sonko j'ai toujours fait des Marie Théonian professeur je sais pas mais je pense que la place de Marie Théonian c'est d'être avec Ousmane Sonko voilà je l'ai je l'ai je l'ai toujours pensé loolu laa mos a gëm loolu laa mos a bëgg peut-être là

une lapotonie. C'est une république qui est en Afrique de l'Ouest, qui a un drapeau qui est vert, jaune, rouge, avec une étoile au milieu. Et puis voilà, c'est une petite bourgade euh, ouest africaine dont le drapeau est vert, jaune, rouge avec une étoile au milieu. C'est ça, c'est là-bas la Lapotonie. Ses habitants s'appellent les Lapotos. Voilà. Toi qui poses la question, c'est quoi là C'est quoi une Lapotonie donc voilà. Ces habitants, on les appelle des lapotos. Ils sont plus caractérisés par euh, cette habitude de dire Donc le la là, baax tout ça là voilà c'est ça le caractère quand c'est du mal c'est l'affaire de Dieu de Dieu qui a agi quand c'est bien c'est un succès c'est le marabout qui a crié c'est l'effort du marabout qui a payé quand c'est bien, mais quand c'est mauvais, c'est la méchanceté c'est Dieu le méchant qui a tué, qui a fait ça. Voilà, c'est ce pays-là. Ce pays dont les gens pensent comme ça. Voilà, c'est là-bas là, pour te dire, Quand tu y vas, il faut faire très attention à ton téléphone, à ta pochette, à tout ce que tu as là. Surtout quand tu rentres dans la mosquée, fais attention à ton iPhone. Ils vont te le piquer. Fais attention à tes poches. Ils vont te piquer et ils vont l'amener à leur marabout. C'est là-bas la là, Il faut faire très attention. Madame Assaou nous informe que le président Ousmane Sonko a été élu le président du réel. Le réel, c'est le réseau des élus donc de c'est le réseau des élus de Yéwe Le président Ousmane Sonko vient d'être porté à la tête de ce réseau, le réseau des élus des élus locaux de Yévi Askani Bravo, c'est une consécration. Ce n'est pas une surprise, c'est une consécration normale. C'est ce que j'ai toujours dit. Voilà. Cette nomination explique ce que je disais quand il s'est agi de choisir un candidat pour la présidence de l'Assemblée nationale. J'avais expliqué que le candidat de Yévi Askani pour la présidence de l'Assemblée nationale ne pouvait être autre que bien tous les autres passés. Je vais expliquer pourquoi.

yeewu askan tamit ma taxaw ni ñoom parti yooyu ñoo yelloo am yenn responsabilité yi voilà parce que man doxuma ci ay parparloo kon voilà mu lii rek la ñun askan wi nga xam ne ñun ñooy yeewi askan wi bu ngeen defee loo xam ne lu jaadu la loo xam ne dafa méngoo ak li war a am ndax it dofuñu yéenay tëju di waxtaan waaye bu ngeen tëju di waxtaan xam ne ñun ñoo ngi ci biir taxaw leen xaar lu ngeen nas xam nañ ko fu ngeen jëm xam nañ ko xam nañ leen.

ci tab président Ousmane Sonko réseau des élus locaux de hier à ce félicitations à l'ensemble des membres de la conférence des leaders mais félicitations aussi au président Ousmane Sonko pour cette belle consécration qu'il vient donc d'ajouter encore à son CV politique. Voilà, donc ça je le dis en passant parce que c'est Madame Sob qui vient donc de faire tomber la nouvelle. Donc j'étais tantôt sur la lapotonie, ce que j'ai balancé de mon lapotonie, quelqu'un me dit mais c'est quoi la lapotonie La lapotonie c'est une petite bourgade où les gens ont tendance tout petit à prendre la main dans les rues, C'est un petit bourreau là où on met du mafé, du soupe, des rime. mélanger, après on mange. Ce sont des petits enfants qui ont des plaies partout, qui se grattent la tête et la peau, qui ont des habits déchirés, qui sont dans les rues, qui ne poussent plus, qui toquent devant chez les gens pour avoir de quoi manger. Ça, c'est une caractéristique donc des habitants de la Lapotonie. On les appelle des Lapotons. Voilà, la Lapotonie, ce sont ces gens aussi qui, devant le donc avec des coups de rein, des du indigu, du indigu, du tenir. Ça, c'est un une caractéristique donc, des habitants de la Lapotonie. La Lapotonie, c'est une petite bourgade, c'est pauvre en Afrique de le pays le plus à l'ouest de l'Afrique. Le pays le plus à l'ouest de l'Afrique qui a le drapeau vert, jaune, rouge avec une étoile au milieu. C'est là-bas la Lapotonie. Voilà. C'est le pays où tout ce qui est mauvais est du domaine divers. C'est Dieu qui fait les mauvaises choses et ce sont les marabouts qui font les bonnes choses qui pour les marabouts. Et puis, c'est le pays où personne ne dit la vérité. C'est le pays des barbares. Oui, man ma bar, qui m'a entendu mon bar, ma le gun sering, ma le gun parti. Wow, fait partie de mon deck mon bar, ça des barons. C'est là-bas, là, c'est là-bas qu'on appelle la lapotonie. Il faut faire très attention pour vous. C'est le pays où, quand tu vas dans les mosquées devant l'eau, les mosquées sont pleines à craquer. Ouais, si vous avez des mosquées, vous de des ni vous avez des sering. imaam bi lay jiite kat day soos ak a soosaat bi day soos a soosaat boo làmbee ndigg li fekk fa ay ay béjjén ak ay xànc kooku mooy ci daan bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim moo sama ndomba li fu mu toll ana sama béjjën bi sama xaaj bi a ah xàmm bi foo ko a tuur ah deret a reel ganaar bi kutt ko kii ni kii ci ci julli ci faatixatul kitaab ne moom yàlla la gëm da ko yàlla jàppale amul fu muy wéer ay jaaxle bu dul yàlla yàlla la wóolu yàlla moo koy fajal ak da ko yàlla te kii yoonu la boobu mooy wëtu bu paree ma moo fay ni xam ngeen xam mbéy la c'est là-bas la làppatu ni imaam beeg sëriñ beeg taalibe beeg dañoo am yàlla bi nga xam ne mooy yàlla conventionnel bi nga xam ne moom lu bon lépp moo def am beneen yàlla boo xam ne mooy sëriñ bi lu baax lépp moom moo koy def ci ñaanam ci ci ci baatinam ci ci ci amam ci ci ci ci ci voilà foofu mooy làppatu ni foofu mooy la làppatu ni moo du leen bu ngeen fay def seen téléphone dañuy tafu téléphone bi jàkkee dañ koy sàccee waaw il a été faire des recherches. L'apôtre est, de un fait des gestes. Parfois, tu le de. ah, Il a été faire des recherches, c'est bien ça. c'est bien ça. Vous avez compris pas ça, hein a Il On a a de... On il il y a des gens qui ont été de voir... de a mandarga yi làppto li nga xam ne mooy mandarga làppto lépp mënu leen fa bare bare bare su ngeen bëggee xam làppto dem leen ci dëkk boobee nekk en Afrique de l'Ouest am drapeau vert jaune rouge waaw 17 millions d'habitants waaw bu ngeen génnee ci mbedd yi moom moom fa rek jëleen seen i bii wala ngeen dem bu ngeen demee ngeen xam na luy làppatu def leen fa une semaine léegi ngeen xam luy làppatu parce que kenn ini ini ini kan mel wah kenn bari dafa bari xanaa leer na léegi parce que topp ngeen ba tey ñu bari topp nañ ko luy làppatoo tuh làppatoo

mon C'est La qui habite en potonie On va parler là-bas, c'est pas sûr. Ah, <laughs> c'est à vous de voir. Hein. on va parler là-bas, c'est pas sûr. Ah, beaucoup de hein. à quoi vous tëj Akanhou site legal, Tanei Lamin. Ih, module. Gal que site, Tanei Lamin. Vou reconhecer aqui seu filho. Tá. Fogo lá. Imam da Nisso, você não sabe. Buku dia nak buku ni buku ni dia aku jam kita pagi dia kena tanggal buk. Aku ni dia. Kau boleh betul ni. Yang mau jadi dia orang kamu filat tu, orang kamu lain dia lah, kamu filat tu. Kamu kau bah bah bah bah. waaw nga gis ay xale yu ndaw toll ci six ans ak sept ans wala nekk dans les grandes écoles ñu leen di former en robotique ñu leen former en codage wala leen waajal pour que ñu préparer ay missiles yoo xam ne ëllëg bu xalaat bi wala ku bëgg a jóg dal ci suñu kaw ñooy taxawal entreprise bi ñu leen di jox loolu ay xasida ñuy tuus naan barki sëñ bi awa awa awa tàpp seen i muxtu ak daal sëñ bi kenn moom waaye dootuñ def ci quatre yu ndaw nga xam ne boo léegi ñu tege suñ kaw dëkk bi tas ñu war leen wàññi ci cottage gi mais yëpp mi leen di dóor si kenn xamul foofu làpp doon gëm da nga xam ne moom yi moom xam na fi may wax waaw zéro zéro deux cent vingt et un mooy seen waaw zéro zéro deux cent vingt et un mooy seen mooy seen mooy seen indicatif bu ngay def leen ju def zéro zéro deux cent vingt et un yéen ñi nekk bitim réew ku fi def zéro zéro deux cent vingt et un rek ci teel làpp bi ngay tàbbi to boo dee allo buñ ko def waaw waaw wari ma waay wéef ak ñoo gaaw ci wéef boobu boo ba juum téléphone ba def zéro zéro deux cent vingt et un li ngay def mooy sama ordonnance bi damaa feebar de waaw express waaw wéef bi damaa daanu damaa damm sama papa dafa feebar damaa war a leen dëj damaa war a gàmmu ji damaa war a maa sos bu ko ko defee ci leen de da ngeen dëgg daal ci aku yawan yawan moo dul de boo dee benn di wax ci xam-xam yu saaga la ñoo gaaw ci saaga dakkal la saaga nag ñàkk la nga bàtt la saaga sa papa saaga sa yaay ndax sëriñ bi sëriñ bi la ñuy défendre de waaw saaga sa papa saaga sa yaay foofu koy làppatoo di moo du leen de yéen ñi nekk biir réew bu leen foofu woote bu ngeen jumbe ngeen kati bu leen jum ngeen kati de bu leen bu ngeen defee zero zero deux cent vingt foofu gàmbi la waaye bu ngeen defee vingt ngeen def vingt tey ngeen dee loolu ngeen gaaw a coupé ñu gaaw ci ay bant ay ordonnance yi ay ma léeg lépp xam dafay dégg bari programme bari programme lool marine marine nit ñi marine te laax soble amuñu soble ba nga naan dañuy marine mooy du leen de ah amoo vinaigre amoo mutaade di nga xam ne léegi danañ amatul ndax xeebu yi beneen soble amoo amoo soble amoo vinaigre amoo soble amoo vinaigre amoo moutarde naan da ngay naan da ngay mariner waa làppatoo yi làppatu na ñoom loolu mooy seen métier mariner rek daa soble soble wala boobu bu ñu daawee soble bu lax la ñu yor kenn jaar waaw waaw waaw boo leen ngoowul sax ñoo lay woo ndey ndaak saar nee na billaay boo leen ngoowul sax lay woo waa làppatoo ni peut-être ba ba WhatsApp bu léegi kenn am jàpp yàlla war nekk réew moo xam ne ñun ñu màggee ñuy njëkk a ko yelwaan loolu laa bëgg njëkk xeex ci réew réew mi su fekkoon sama loxo yelwaan laa fi njëkk rek kenn du yelwaan sëriñ ñi di xëy yelwaan kenn du soqaliku li ma gën a métti ci réew mi mooy yelwaan te yelwaan bi kat du ko lay rek de Malien yi Pël Guinée yi yalwaankat yi Gambie yi ñoom ñëpp ñu ngi Sénégal faax nañu surtout Guinée yi ñëpp ñëw Sénégal toog di yalwaan mbenn Sénégal yëpp ay yalwaankat dafa nekk li fekk waaye mag ñi lañu yalwaan mag ñi yalwaan mag ñi lañu wu sol i gasne rek def seen parfum dem ci kër kilifa yi di politiciens yi di yalwaan ñëpp yalwaan géwal yi di yalwaan xale yi di yalwaan mag ñi yi yi ñi mënut a yalwaan di jaay dañu yore foofu la opportunité liggéey déedéet dund ci kaw ñax déedéet liggéey du laax kese foofu la opportunité que le temps de la politique est terminé c'est le temps de l'action du travail ngeen bàyyi dugg ci avion yi Barthélémy Dias daanaka bi mu faloog léegi janvier léegi léegi mu def le tour du monde moom ak ñoom Abbas Fall ak ñoom ñooñu mairie Dakar ndax léegi ngeen jeex le monde yéen a ngi def le tour du monde ngi ci avion ak hôtel yi yéen ngi ci avion yi ak hôtel yi guddi ak bëccëg du ma bokkul ci liggéey bi du ci la bokk. waaye bu ngeen bëggee jël tukki ak nekk ci hôtel yeeg ci colloque yeeg j'ai le plaisir j'ai le plaisir il a toujours le plaisir il passe son temps sur son bien Facebook j'ai le plaisir d'avoir été ceci j'ai le plaisir partenariat ces plaisirs-là ne sont pas ceux des Dakarois. Les Dakarois patrouillent dans les eaux. Les Dakarois patrouillent dans un cadre de vie dégueulasse. Les Dakarois t'attendent dans le cadre de vie. Cadre de vie, me avons Le Cadre de vie, me rend hygiène.

dans les hôtels les plus luxueux, aux États-Unis, partout, on m'a fait des remarques. Il faut arrêter cela. Vous ne pouvez pas avoir une ville comme Dakar où les routes à Kergorgi et ailleurs sont dans une situation calamiteuse. mais Dakar ne mangent pas, ils n'ont pas d'eau, il n'y a pas d'hygiène. Force inhibile de Medina, ville de Dakar, il faut que les forces sceptiques là, d'où ndox douche qui ngi des mbedd yi di des yoon yi baaxuñu Dakar a une ngi nooyi il y a une cadre de vie amuñu espace vert une sécurité bi yéen lamp yi tànn yi tout ça partenariat yaa ngi ko wax sax nga jël Dakar ba nga toog ba léegi yow ñëpp a paas paas ngeen di politique guddi ak bëccëg ak taxawaal bu ci am yooyu di wër àdduna bi ça suffit. on a ngeen foog ñun Macky Sall góob nañu opposé képp kuy caaxaan yoon dañuy opposé moo xam nga ànd ak ñun moo xam nga opposé ñun Barthélémy Dias Abbas Fall il est temps te li ma def nii live ma defet naa ko wax dinaa lu leen am ci ay vidéo Dakar rek yooyu yéen leen ko fi parce que lu ñu leen fal moo tax bu ngeen yaakaar dañu leen a fal bàyyi leen ngeen def leen neex da ngeen nax seen bopp seen tànk suñu tànk carte yi ñoo fekk baax mi ngi doo fekk bureau bu Abbas Fall politique premier maire adjoint baax da ngay baax mi ngi àll dal daal Abbas a ngi politique ba xet ba xet lu tax Abbas amul de responsabilité lu tax baax ko ay na ko délégué ay pouvoir toog war na mën ay pouvoir délégué ko te boo délégué sa premier maire adjoint dama joxe délégué est ce que Abbas a des pouvoirs délégués Abbas Fall est ce qu'il a des pouvoirs délégués il est premier maire adjoint de Dakar il n'a aucune délégation c'est scandaleux si c'est le cas si Barthélémy Diaz n'a donné aucune délégation à Abbas Fall que Barthélémy Diaz n'est pas prêt à travailler c'est scandaleux une ville comme Dakar qui a 19 communes dafa nekk ci ay liggéey plus de 70 ou 75 milliards de budget nga yor pouvoir yëpp te doo toog fi nga fekk yaa ngi ci hôtel yeeg ak yooyu Barthélémy Diaz ak say staff Abbas Fall nekk sa premier maire adjoint su fekk wóolu ma nag Est-ce qu'un Fall a des délégations de pouvoir du maire Barthélémy au niveau de la municipalité de Dakarville C'est une question que je pose. Parce que lui-même pas madame Saoud dit Barthes ne lui a délégué, ne lui a rien délégué de sérieux. Non, ça c'est autre chose, ne lui a rien délégué de sérieux. Mais est-ce qu'il lui a délégué quelque chose d'abord li mu ko délégué su ñu xamee ne lii la ko def ñu xool ndax doon lu sérieux la wala lu parce que man j'ai jamais entendu que Abbas on dit Abbas Fall premier maire adjoint mais gisuma ci benn délégation je n'ai jamais su que Abbas Fall s'occupe de ça ou de ça à la mairie xaw ma lu muy occupé wu ci mairie bi ñun ñooy yeewi askan wi Bata Gabi Diar Abbas Fall du leen yeewi askan yeewi askan wi ñun la ñun ñoo bëgg a yeewi suñu bopp Barthélémy Dias je l'interpelle te yéen ñëpp maa ngi leen demandé ngeen interpellé ko dañ ko fal pour ñu Dakar dañ ko fal jox budget pour que mu Dakar fal ñu ko pour que ay boobu essence ki ay boobu 500 millions 200 millions di ko distribuer def ay chèques di def ay non non on peut pas distribuer la richesse ça ne créer au social ne peut pas précéder l'activité économique qui la richesse il faut produire de la richesse avant de la distribuer parce n'a pas le sens de la réalité économique. Il faut créer les conditions de l'épanouissement d'une vie économique tenable, soutenable, qui crée de la richesse. C'est à partir de la création de la richesse qu'on pense à redistribuer la richesse vers les ménages les plus faibles. Les partenariats, elles le concept. Pour notre budget, il pas que le budget, il faut faire que du social. Ça, il y a an, un temps, c'était ça dans la vie. c'est nous sommes au 21e siècle, nous sommes à l'ère numérique, par le biais par force de la loi. Nous sommes nga leen Badara Sow baax na travail pour avoir des réseaux mais duñ ko bàyyi bu muy amee réseau baax na bien tu n'auras pas de réseau le meilleur réseau c'est le travail tu peux avoir tous les réseaux du monde faire le tour du monde ce sont les Dakarois qui vont voter ça sert à rien parce que cette façon de faire la politique c'est révolu travail des résultats ñu ànd ak yow jàppale la ñu la yow far de ñun ñii man mii damaa xeex pour nga faru baax na bien bañ a évaluer waaw kon ñooñu ñoo far lii ñu wax ne tàmm ngeen ne ku dal ci seen kaw ngeen mel ne ko yaakaar naa ne xeexuma maa ngi yéen a far mais liggéeyal ma bientôt un an le 23 janvier nga nekk maire Dakar yéen ñi may waxal kan moo ci xam bu baax leen yaat dégg Dakar ci wàllu hygiène sécurité ci wàllu projet bu structurant bu taxaw kan fan ngeen dégg saa yu ngeen dégg baax leen yaat j'ai le plaisir j'ai été saisi il fait le tour du monde ak it xaw ma joxe naa ay mën a bopp ñu ngàcceen ko fii programme structurel un programme durable un programme boo xam Dakar dans trois ans fii la ko baax les médias bëgg a jëmee ci wàllu infrastructure ci wàllu équipement ci wàllu cadre de vie ci wàllu sécurité lan mooy programme de Barthélémy Dias dans trois ans d'ici dans la mandature Barthélémy Dias lan mooy programme xawma ko xawma ko il faut ñu wax ko duñu complaisant li ñuy dal ci kaw Macky Sall di ko yàq ba su nekk defuñu ko parce que dañoo far fii de dañu ko koy yàq parce que liggéeyul Sénégal Macky Sall bu ñu gisee mu nekk suñu biir te liggéeyul ñi yàq Macky Sall lañ ko fekk ñooñu nekkal ñu dañu di jaamu ay nit yi di dund kenn wala pour mu neex kenn yàgg na leen ko Barthélémy Dias ne travaille pas encore lu seq Barthélémy Dias ak yan délégation la am mais premier maire adjoint à Dakar kooku waroo am jot di politique Dakar est truffé de de détritus Dakar est une ville sale Dakar est Dakar est plat Dakar est chaud y a des niches Dakar c'est le trésor mais l'occupation de l'espace Barthélémy Dias lu ñu def ñëw teg désordre mënoo tourner jaay ta table mango jaay mango fii tëkërëkër mais ce bazar là Barthélémy lu ciy xaar il faut nettoyer Dakar Dakar doit être une ville propre voilà nga toog ay ceeb diwlin suukar boobu échange mais tu te rends compte parce que c'est un pays de yalwaankat ñi fal la ngay ngay saraxe foo toll di joxe ay boobu dem leen lekk non au moins de l'emploi il faut créer des, créa des conditions de création de l'emploi. On doit donner à Il faut avoir une politique économique incitative. Quand on est maire d'une grande ville, on doit créer des conditions qui permettent aux citoyens de créer des entreprises et de créer des emplois. On doit donner à Bafle. Des questions économiques, des questions de finances, des questions d'emploi. Ce n'est pas le vocabulaire de Bafle. Social, social, social, distribution, c'est Parce que ce genre de politique, ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça.